discours bi war a am nan la tudd. waa à bii nag dégg nag discours de la nation au président la. c'est très simple ça fait onze onze discours parce que 3 avril ak 31 décembre 22 discours de répétition de redondance amul dara luñ ciy jëlee lu dul ko ñii sàcc xaalis nga leen di promouvoir di leen nommer ministre ñii saaga nga leen di nommer député ak di live ak ñoom di jàpp nit ñi di tëj di euh, dund gi di gën a cher coono yi di gën a yokk yow nga ñëwaat bëgg a taxawaat day jàkkaarloog ñun naan da ngay defaat da ngay wax lu kenn xamul dañu ne bi yoon askan wi ñoo koy lancer un signal fort te gis nga. concert de casserole sa permettra suñu maam yi nga xamante ne ni seen tànk jotewul fii ñi nga xam ne amuñu jot suñu yaay yi nekk ci waañ yeeg yooyu ñi nga xam ne liggéey bi da leen a tënk ñi nga xam ne xëy na duñu gis et cetera ñëppay mën a participer moo tax ñu woote concert de casserole pour que Macky Sall bu bu ne mes chers compatriotes bool yi tëggandoo mu xam ne moom kat askanam kontaanuñu ci lim fi jot a def ci 11 ans mais en même temps. mu mën a waxaale askan wi ne man kat li ngeen di tiit muy troisième candidature du ma ko def jeex na dossier yi ñuy wax dossier cour des comptes dina leer ñii ma tëj ci kaso bi dinaa leen génn dëkk bi dina jaar ci yoon loolu la xaar ci moom xaaruñ ci moom leneen jërëjëf